gars yi ziar ziarata mbokk internet yi nuyu lañ leen ziar nañ leen fi leen daan nuyoo euh, di leen wax ne tey si dañ déplacé wa ah, ñëw fii ci Kër Massar seen émission tey seen émission lamb seen émission bëre kese ñu ngi ñëw seet si kan gaucher le gaucher magique de Kër Massar pensionnaire de euh, de l'écurie Diop Soga nekk moom la ñëw seet si tey ah, fas yéene si xëy mu waxtaan sama gars yi waxtaan moom ci carrière am ah, fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm kan mooy gaucher saison 2022 2023 lan la la fas jotu ñu woon sax Gaucher mën na mës am bénn défaite parce que dañu fekk nga nek ci nga nek ci tegale ay victoire victoire victoire victoire waaw am boy yo xamante bañ may xam bañ may xam quoi jamono joj ma ngi wara a doomu loor am na ñoo xam ne sax ba amna boy yu ndaw yo xam ne ba may bëree sama premier combat dama ñu essat ndax ay mbocc lañu won woon tax mu joggé ci défaite ci doomu jaamu gën boy yu bëri daf leen dañ ko wuñ ko quoi wuñ ne sa way ni ni doomu jaamu gën daan na ko eh xam nga am boy yo xam ñi joggé essat sax ma la suma waaye xam nga dama leen di xool sax mais damay tour xewal quoi ndax maam air eh, ma xam ne booy nii xam nga na lu ma leen amal tellement que ni ba defet bii nii xam nga dafa leen metti li ñu xam ci gauche mooy bëre daan ñibbi eh, te bon bu ñuy pare ko maam ak doomu jaama gën sax ñoom noonu laa koy waxee dama naa leen koy a delluwaat muy victoire hmm. Hmm. suñu ñëwaatee incha ci ndam la ñuy ñëwaatee bu soobee yàlla hmm. moo yaa ngi nappewaat no du kaa nga bëgg napp booy instant bi booy seetaan mbër yi lay seetaan ñoom nga bëgg a euh, euh, maanaam dugal ci seen maan na su ma dinaa leen def lu métti genre yooyu non du cadre boobu sax xale laa te xale du juum ñaari yoon te booy ah, xale warul juum ñaari waaw te booy nee nañ baal nañ ma bii quoi kon beneen su ma ñëwaatee duñ ma ko pardonné loolu la nañ la prochaine fois duñ la ko pardonné ce qui veut dire instant bi ci n'a pas droit à l'erreur non waruma sax erreur war man nelaw sax waruma nelaw bay def erreur aussi dama jël soit ci combat bi sa diggante ak doomu jàmm gën lan moo la xañ jour boobu parce que parce que bi nga daanoo danga mel ni ku jommi danga xulli say bët comme saa ne non damaa daanu fi nga taxaw ne la rak ji li yàpp dara làmb la bari daanu daanu maa ngi wax ak yow mais yaa sa bët yi mel ni mel ni ko absenté defet boobu noo ko enquête waaw excès de confiance la rek waaw defet la boo man dara booyi a àgg daan ma ku ma jàpp dama lay daan loolu nga demee woon waaw man loolu laa jàppoon sax yàlla xam na ba may pare combat laa la wax nii li ma doon entraînement maag bébé ngaar ma kaa wàññi yàlla xam na ko billaahi wallaahi wa taala maag doomu jaamagon mat naa ma sax lu bari ndax man jàpp ma ni man la suma waaye man booy bi dinaa am ci moom ay rëpp ak affaire yooyu noonu dama jàppoon ne ko automatiquement dama koy jàpp daan ko moo tax ba ma daanoo tamit xam nga nekk na defet woon dafa maa jaaxal dafa maa eh, maa beet ak ak maanaam façon ma daanoo quoi waaw man bëggoon naa su bu leer bëggoon naa su may daanu tamit naa bëree ba daanu ci biir bëre wala ma bëre bañ daan ma mais bëréewu ma xeexu ma damaa ñëw rek daanoo yee loolu moo ma ci gën a metti ci defet boobu noonu léegi nag nga toogaale defet boobu di waajal keneen instant bi mi ngay waaj mooy ñu jox la benn adversaire nga woon ko li nga toogaale maire bi nga toogaale nga sippi ko ko n'est-ce pas loolu ngay waaw man nekkul benn adversaire sa adversaire yëpp waaw adversaire yëpp laay toog di xaar waaw léegi man dama lay limal ay adversaire yoo xam ne danga leen a moytu ñoo xam ne baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg baaxuñ ci ci baaxuñ ci àll baaxuñ ci biir ci biir dëkk ñoo xam ne dañoo bun dañoo soxor duñu aale duñu baale yaa ngi may dégg ma limal la wolof wax ak yow de ma la parcelle parcelle unité unité unité parcelle parcelle parce que parcelle kan fa ardo mo fa dafa mer da nga mer mais ardo la mer ñaari de un deuxièmement ku melni franc mi ngi fa instant bi day jàpp di dajji rek di jàpp di dajji benn defet la mës a am te ngembam laalul suuf Siteu bu Ngor moo am ndam ci kawam par avertissement yaa may dégg bu ma jógee parcelle ma dugg Ngor ki la daan ki ko daan fëgala bu Ngor bu ko tudd bu ko taas bu ko tudd bu ko taas parce que il est très dangereux jàmm gën fi nga duggoon jële fa jële fa la neexul caatu fora mi ngi foofu instant bi dafa mer keroog loo soodu moo këpp yelwaanam instant bi mer bi mu toogaale kum ko sippi lay wër est Pikine boo fa duggee al ban yow yow boo yow xam nga làmb yow li ban Liss Ndiago lis Ndiago moo mën ñaari gauche nga naa ma lis Ndiago lis Ndiago moo leen ëpp seytaane fukki junni yoon moo leen dàq bëre ñaari waaw waaw yow yaa Liss Ndiago kii waxul Liss Ndiago mbaay mbaay seet boo duggee pikin Alliance Baldé dof la dafa soxor dafa bon Alliance Baldé amul ne day jàpp gars yi di dóor ñuy daanu Alliance Baldé dóor mu daanu Alliance Baldé dóor mu daanu kon xam nga ni kooku baaxul ñi mën a limal koo ci seen gauche jëlal droite bu leen laal bu leen jege bu leen tudd bu leen taas waaw. waaw man moom su fekkee yow loolu sa xalaat ngay wax rek mais duñ duñ la ko bañal quoi ndax ku nekk ak. ardo ku nekk ak sa xalaat ngay wax mais maam. Franc Mbeur moytul fëgale bu ngor moytul caat moo moytul alliance bal. adversaire yooyu nag bu ñu rangoon duma jël caar fora du ma jël alliance bale fëgale bu ngor laa jël xam la moo tax may jël fëgale bu ngor damaa jum ci doomu jaamu gën te moom dafa daan doomu jaamu Alliance Baldé du ma ko jël du ma jël ñooñu noonu est-ce que xam nga ne ko ne na yow la wax kay indien bu Kër Massar bi daanu misel nee na yow lay tëkku yow lay laaj jëlal booy bi wàccee ko man maa ko naan jëlal booy bi wàccee ko rek combat bi taxaw nga am nga di maamu problème ndeysaan foo jaar ba génn ci non déggoo ma damaa juum ci doomu jaamu gan te su ma juumee ci doomu jaamu gan su ma neexoon damay bëri man su ma neexoon damay bëri naa bu yàgg mais am na combat yoo xam ne su ma ko daanee du safe ñu may àndal uh-huh. li tax du safe mooy maanaam dañuy xam ne que ay mbootu laa daan te damaa jóge ci combat boo xam ne examen la ci man yee te examen bi ma jógee dafa métti képp koo xam ne daf may bëggee kon su ma fa jógee dama war a jëlaat combat boo xam ne combat examen la waat examen yee dama war a passé waat ñaax damaa war a passé waat examen te su may passé examen booy boobu noonu laa koy passé fëgala fëgala bu ngor fëgala bu ngor lébu bi fëgala bu ngor le prince de ngor waaw yow man may pël bu ñuul bi aro danaan pël bi alda du pël bi rek pël bu ñuul kooku bàyyi nii billaahi ok d'accord léegi daal fëgala bu ngor face à gauche na taxaw loo wax ci ardo nga ne waaw aro man maam du ma wax ci moom ndax moom nee na pël bu ñuul la ah. te nekkul pël bu ñuul pël du ragal kan moo ragal déggoo ñoon la pour la si xulli rek xaaraani pullo so huuli harani kosam a haali hal hal haalko haalpulaare ñoo xam loolu noonu e noonu la pullo so tan harani kosam joni mm-hmm. ardo wona pullo ardo wona pullo pullo hulata a yi ardo huuli eh ardo huuli kay holno huuli oy combat mo jawtuɗo ilahi kuci moyto wullis njaago dina këpp sa yelwaan ba ñibbi ba dugg jamagan ngay soog a xippi ni ëpp ndeke man damaa daanu yow ardo boo yëpp ardo moo ci ëpp seytaane boo yëpp ardo dafa lëj xam la mooy problème xam nga lis dafa mën a bëri Il dafa mën a bëre il est très fort techniquement mais Ardo Ardo Ardo dafa lëj naka lay lijjanti Ardo da ngeen di bëre mu mën la daan la nga mën ko mu daan la Ardo ngay bëreel dominer ko 90 minutes temps additionnel mu am benn occasion dugal ko match bi fin mu gagné xoolal xoolal ni mu këppee yelwaanu yelwaanu yelwaanu chat euh, Fora xam nga foofu ñaari pëli la woon mais foofu pël bu xees ak pël bu ñuul Ardo ak chat Fora mais yow ak Ardo ci biir géew ñaari pël yu ñuul kukku ngay am ci biir géew bi te yàlla xam na ni bés boo leen taxawee ci biir géew booy ba mu riimel la yooyu noonu ba mu tegal la ay riim moom rappeur la rappeur la ndeysaan mën a rap nag day day teglu nice bés boo leen taxawee ci biir géew ba mu tegal la flowam yooyu technique yooyu noonu bala ngay sib naka waar day ñibbi ba dugg parcelle unité a ngay soog a sib ne ah lii moo xew moo ci lar en tout man maa ngi toog suma ruko ah loolu moo ci ëpp solo maa ngi toog suma ruko di waajal adversaire yëpp waajaluma fëgala bu ngor xaaruma nu mu tudd sax sa waay nu mu tudd boobu na ardo xaw ma pël la xaw ma tukulóor bi xaaruma ko maa waajal adversaire yëpp képp koo xamante ni moom ñeme nga adversaire boo xamante ñeme nga pour bëri ak man damay bëri ak yow yee nga nekk adversaire boo xam ne adversaire bu ñu war a bëreel la rek loolu kese la noonu nga taxaw waaw xam nga seeg laamu léegi nu muy demee la rek waaw laamu doomu jaamu gan grand combat la bëre da grand combat bu mu koy bëre moom ba may bëre moom stade su ma xaajoon samay supporter fukki xaaj ak juróom-ñaar moom undiwul lool noonu dem na bëri doomu doomu jàmmagën de waa jàmmagën la te ku ne xam nañ waa jàmmagën dañoo mën a supporter bàyyi say ngay def yow xam nga ni jàmmagën koy mën a supporter jàmmagën ngay jàppale waaw loolu maam dëkkuwaay la rek tur bee fi ne rek jàmmagën la yooyu amul solo xala moom solo maam nit ñi nag leen woon li tax nga leen di topp rek mm. waaw loolu moom solo quoi waaw amaana boo yooyu noonu am na ci ñu mu woon lu mu koy toppee mais am na ñoo xam ne koy topp man instant ni deux séances laa def waaw par jour waaw instant bi combat man xëyu ma gont ma yee mais daf maa wàccee lépp ne ma dama entraînement te man dafa am loo xamante ne maam dafa manqué kër ga quoi te caat bee ko war a lijjanti a mhm. waaw instant bi yaa ngi rey sa bopp parce que bëggoo ñu la instant bi ku la woon combat deux semaines pare nga physiquement pare nga techniquement man pare na ma déggoo ma ma jógee ci doomu jaama gën laa la wax ni ku ma joxaatoon weer boobu combat damay bëre mais léegi laa mu léegi la kenn xamul rek c'est adversaire da ngay ñëw nga gisee adversaire boo xam ne da war a bëre yéen ñaar am ak ay duma bëreeg diw kii laay bëre la kee noonu la demee quoi mais gars yi ak ñoo bëri ay ninja dañuy fente rek waaw mais ñun ay laamu jànk lañ a góor bëgg quoi ay laamu yoo xamante suñu morom lañ mais ñoo xamante ne xam nga laamu boole wuñoo ak ñoom ñi ñu laamu booleel moom ñi nga xamante ni ma la sumu waaye xam nga ñoo fi nekk ci kaw di balbalaw di teg seen i ma man ñooñu laa war a. seen kaw nga instant bii nii défaite bi nga jógee la nga ci ay leçon classé nga ko sa ginnaaw instant bi yaa ngi xool sa kanam ñan nga war a jëlaat yan nga war a te dugal leen ci palmarès bi ñu ne Gaucher daan na diw daan na fi diw daan na fi diw loolu ngay wér instant bi ma déggoo ma man la booy Naaru Sogas jël na Liss Ndiago te bu jàppee Liss Ndiago dina ko wan xam mu ngi maa man paalaa bu toog téye sama course bu jàppee Liss Ndiago ba bàyyi ko Liss Ndiago moom moo war a liggéey parce que naar booy bu ci jàppale naar sogaas da lay may sens xajal la nga jàll yaa ngi nax sa bopp booy bu mu ci jël dalay lay ci delloo walla sa place ku weddi laajal baaba jaxal déggoo ma booy c'est que dañuy jaawale ñaar ñu bokkul Sénat man du ma booy booy duñ man te booy ñoom man li ma capable xaaj xaaj xaajaat bi capable luñ ko yow sa capacité booy amuñu déggoo ma xanaa billaahi ba seeg xam nga man seeg arale amaguma chance maanaam bëre quoi bëre ba ñu xam ne kii dafa mën a bëre waaw man mais ay combat yoo xamante ni xam nga damay nii rek xam nga mais man maam bëre quoi bëre dañoo war a suñu morom ñun ñu fi maanaam bëre teg teg yi yee la demee te suñu morom ñu ngi ci làmb ji mais xam nga la mooy problème mooy tonte bi moo bari dañu bàyyi mooy tonte bi te mbëkkante ci seen bi noonu la demee nag ngeen defante ko mu metti boo da gis fii man la sama waaye ku war a bëre ak say morom nga jéggi fa dem di wëri benn pas boo jàpp pour daan ko wala nga jóge ci defet di toog di xaar beneen adversaire boo xamante mën nga daan adversaire pour bëreeg moom yow xam nga li ma bu baax a baax man laamu jàmbaar laa bëgg laamu jàmbaar doomu jàmbaar su ma fekkoon ne affaire de palmarès lañ doon xool wala affaire de xam nga nekk ci laa affaire du ma bëreeg doomu jàmbaar mais supporters yi supporters yi instant bi côté mobilisation bi est ce que ñoom tamit ñu ngi waajal bu baax bu a taxawee mu bañ leen a bett booy pare nañ yow ñi chaque ñu ngi réunion sama gaale chaque dimanche mm-hmm. chaque dimanche ñoo xam am naa combat ñoo xam am ma combat chaque dimanche ñu ngi réunion sama gaale pour maanaam lépp loo xamante ne lu leen manqué la quoi ak lu manqué ak lu manqué la moo leen manqué ñu ne prib combat taxaw na ñu ne prib ñun tamit pare nañ nice booy a xam ñoo ma gën a namm sax làmb hmm. na loolu booy ma fuuf damay dem koñ ba sax laa wax ni mairie dañ may dab naan ma kañ ngay bëree maa war a bëree quoi xale laa waaw damaa war a bëree mais mais Gaucher làmb ji kan mooy kan mooy sa idole man laa ma ji instant nii pour l'instant nii non laa ma ji ma aw ma fi idole quoi. sa idole. non aw ma fi idole. waaw jot bàyyi kon kan moo nekkoon sa non man xanaa sama mag. Aliou Gose waaw. Aliou Gose mooy moom laa. sa mag bi nga bokkal ndey ak baay. waaw moom mooy bëree moom moo doon bëri may gis si moom ay qualité bëre yoo xamante ne xam nga dama doon contact ak moom sax ñu bëri ñoon yàq bi suñ contact man ak moom ndax maam qualité bëre yi nekku ci moom xam nga am na affaire saay saay affaire bëre yu bëri ci moom laa ko gisee. mooy sa idole waaw moom Aliou Gossé sa grand frère bi nga tuddee sa bopp waaw te dafa am loo xamante ni daf kaa tracé ci làmb Kër Massar waxuma la sax arène de Kër Massar muy benn yoon boo xamante da cee nekkoon xam nga yoon bi yàlla def mu mu yemale ko foofu noonu mu jël lenga yeeg xam nga takkaa yeeg ngéem geeg yëpp jox ma ko kon man yoon bi mooy maanaam maa war a continuer ba foofu noonu moom mu bëggoon foofu noonu yeeg ba àgg ca kaw yé ma làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq bëri làmb ji sax bi ma la ko man Val laa gis mbër bu dàq bëri ci làmb ji Valérie Valérie Valcara moo dàq bëre ci làmb ji làmb ji wërngal këpp Valérie moo fi dàq bëre waaw man moom laa làmb ji mbër boo xam ne moo dàq bëre ci làmb ndax moom mooy mbër bi ma jaaxal ci bëre waaw Valérie question suivante bi da nga may limal juróomi mbër yi dàq bëre ci làmb ji Valérie ak kan ak kan ak kan waaw man su ma la doon limal sama waa école laay lim dama naan la Val Valérie Rendi Seega Rendi Seega danga koy boole ci juróomi mbër yi dàq bëre ci làmb ji Jinne bu ndaw Jinne bu ndaw da koy boole ci juróomi mbër yi dàq bëre ci làmb ji ak Paul bu daaru pël bu daarul da nga koy boole ci juróom mbëri dàq bëri ci làmb waaw ak melax melax fils de bokk na ci juróom dàq bëri ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex xeex ci làmb ji fii fii am na ko mën xeex loo Gris Bordeaux Ama Baldé Boy Niang hmm, suite euh, Jackson yaa ngi may dégg kan moo fi dàq xeex laama ji laama ji xanaa Modou loo dem moo fi dàq xeex. actuel roi des moo fi dàq xeex. waaw moom moo moom kenn mosu ko kaawte ci làmb quoi moom la. li man ma juróomi mbër yi dàq xeex ci làmb ji Modou Lo ak kan melax. melax fils de Ali mën na xeex lool. melax dafa mën a xeex ay tafaatin. tafaatin bawal bokk na ci juróomi mbër yi dàq xeex ci làmb ji. waaw même Paul bu daaru sax mën na xeex Paul. Paul bokk na ci juróomi mbër yi dàq xeex ci làmb mhm. mu des benn. mu des benn. ak kan mbër bu mën a ak Boy Niang Boy Niang mën na xeex Boy Niang bokk na ci juróomi mbër yi dàkk xeex ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement entraînement ah man de nekk yow bokkoo ci liste bi yow yaa ngi loos kan moo gën a ñeme entraînement ci làmb te Paul bu daar moo gën a ñeme entraînement ci làmb Paul ñeme na entraînement de question suivante bi da nga may limal juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji Paul bu daaru ak kan ak kan waaw ñun si école booy rek dañoo ñeme entraînement jinne bu ndaw rek daaru jinne bu ndaw waaw ay val val Valérie hmm. ay ay melax melax fils de Ali xam nga ay melax ay bas tonnerre sax dafa ñeme entraînement passe bébé tonnerre ku ñeme entraînement ngi noonu question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi ëpp fit fit ah, moom fit a ngi yow bokkoo yaa ngi loos maag yow ñu ngi loos ban mbër moo ëpp fit ci làmb non ko naa la sama waa école billaahi yow val ak moo ëpp fit ma juróom mbër yëpp fit ci làmb ji saa yu ma la laajee nag nga ñëwaat ak di jëpp soog ne génneel làmb ji jan ñu ëpp fit ci làmb ji Valérie ak kan ak kan la moo tax si école rek laa gis mbër yoo xam ne duñu delloo avance kon xam nga fit foofu la yem ñun su ñu bëree mbër sax duñ dem di la xoolaat noo tolloog affaire yooyu dañuy ñëw rek jël rek bëree Valérie ak kan ak kan ak kan ñoo fi ëpp fit daaru ay jinne bu ndaw ay melax rek fit borom fit a ngi noonu ay bastonnaire yi ñëw ñoo ëpp fit ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban moo fi daax a fecc ban mbër moo daax a fecc xanaa ay booña ay ama jox ma kenn kan moo daax a fecc ci làmb booña booña booña dëggal moo daax fecc ci làmb ji question suivante bi limal ma juróom mbër yi daax a ci làmb ji booña ak kan ak kan Ama Baldé ay Siteu ak kansa ak Naaru Sogaas Naaru Sogaas mu des benn Naaru ak Naaru ak ak ban mbër sax ak ban mbër bu mën a ci làmb yi c'est que mën na xam man mbëru mag yi seen fecc bi mu ko kii quoi mbër yu mag yu ndawee ñëpp waaw ak Paul bu daaru Paul bu daaru ñi ñoo dàq fecc ci làmb ji question suivante dag euh, rakk ji dama bëgg nga wax ma ban mbër moo gën yaru ci làmb ji mbër bi gën a yaru ci làmb ji kan yarul Lac de Guiers xanaa. Lac de Guiers numéro 2. Ah, waaw Lac de Guiers moom daa yaru moom waaw. non Lac de Guiers daa cool rek. waaw borom double sens. Lac de Guiers numéro 2 moo gën a yaru ci lamb. waaw Lac de Guiers moom daa yaru moom. question suivante bi da nga may limal question suivante bi dama bëgg a xam ban mbër ci lamb ji lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a réew mbër bi gën a réew ci lamb ji kal la. réew man de damaa réew moom wax dëgg fa yàlla ci biir lamb moom damaa réew waaw man moom dama non. non man moom sa reewande leer na ma wax dëgg yàlla damay laaj ni mais man yow Gaucher sa reewande leer na ma waaw mais reewande bi nag ci biir làmb la ko dangaa réew dangaa ma jox rendez-vous ma jóge fu sori ñëw ba fii nga toogloo ma fii 30 ko noonu da ma jox rendez nga naan mi nga naan grand bi ko sa ma ngi jégalu damay bañ booyi dem ñu ngi saal ba ma jóge foofu vir vir daw ñëw ba fi toog fi 10 minutes 15 minutes 30 minutes kenn ñëwul booy xam nga ne loolu réewande non mais man yàlla xam na ne ni ma mel na ci laam rek laa ko mais man sama koñ su ma demee du ma siggi sa xool nit monsieur jeex na non déggoo ma soo neexoon da ngay da ngay dem sama koñ quoi bul ma taagu ma def dara nga dugg nga sañ a dem sa koñ ci laaj kan est-ce dafa réew bu ma bu ma jëlee filmé benn booy mu a yii Gaucher ak moo réew wax say réewande nga bàyyi ba ma dem nga tàncu ko dóor ko ba muy bëgg a dee kan moo koy def ma bul dem ci booy sax ci ci ngay dem quoi mairie ak paa yi xam nga nga laaj leen quoi nga leen sa waay dafa rew wala rew man suma ma xol nit sax ci lamb la. waaw léegi ban mbër moo gën a ci lamb non rew man kay neenaal dama rew mais. yow la yow la Cheikh ma wax ci Cheikh yaa gën ci làmb ji ma genn fofu ma genn fofu rak ji ba tay ci question réponse rak ji gouché bëree fit entraînement galaj ban moo ci ëpp solo ci mbër meuna a am fit ñeme entraînement am galaj ban moo ci ëpp solo ci lamb non lolé fit mo ëpp solo fit moy pay waaw ndax maam gis nga nit bu am moy fit bu amul fit quoi am doole am ginnaaw am lépp yee maanaam soo amul fit quoi yooyu yëpp bu ñëwee dajaloo ci yow sa làmb day des am fit moo ci ëpp solo waaw mais sa bu fekkee yow da ngaa jiital fit yow après yow leneen lu di ñëw rek dalay mottali lu ñëw dalay mottali mais fit mooy pay mhm, question suivante bi nga war a bëri ji sa jour combat ñu woo la téléphone ne la Alla Gaucher dafa am bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeenti yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu nga bàyyi fi benn wala doo bëri ban ngay bàyyi gàllaaj ngay bàyyi nga yóbbu bëre fit entraînement. waaw nga bàyyi gàllaaj. waaw lu tax mënoo bàyyi bëre. non bëre man soo gisee bàyyiwuñ bëre maam bëre lépp looy def rek yow bëre moo la koy mottali quoi te kon tey xam nga soo ñëwee nga ne da ngay bàyyi bëre bi dangay ngay nekk fa di buuxante affaire yooyu ngay nëbb sa bëre. moo tax da ngay yóbbaale bëre lu tax mënoo bàyyi entraînement. entraînement bi doole ko doole doole am na lu bëri loo xamante ne soo koy def ci làmb te amoo doole maanaam sa doo ko mën a def. non fit fit mooy lépp fit mooy lépp ci nit. tax boobu galaaj ngay bàyyi. fit yow maanaam doomu aadama ci lépp loo yëngatu rek ak métier bi ngay def ak ci loo mënta yëngu rek yow tant yow amoo ci gëm-gëm am ci fit am ci gëm-gëm ne ko li ciy am rek doo ci am. tax na daal galaaj ngay bàyyi. rakk ji ba tey ci question réponse ban combat moo la gën a marqué ci làmb ban combat nga def stade seetaan ko ah. ma ne lan mooy sa coob préféré nga ni man sama coob man baax laa de man la cin bi togg rek damay lekk mais mooy sa préférence cin yëpp yëpp ban mooy sa man plat préféré lan. plat booy est-ce gën a bëgg njóorni booy njóorni. <laughs> booy bu ko jiiñ booy yi yow laa laaj sa lan la. njóorni man kay wax naa la. Ah, non maanaam xam la tax man la. ciri njóorni. waaw ah, njóorni. mooy sa mooy sa préféré. état ñibbi nii sax soow bi la ñuy jëndaale yóbbaale njóorni. jënd jënd soow ak meew jóbbu boole ko la ciri njóorni dégage. yóbbaale njóorni naa. mooy loo am si coob moo la ko dàqal naas yow loolu moo ñu gënal lu ñu am booy essence bu ñu demee nii sax bu ñu demee gaale njóore bi la ñuy defar rek dóor fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex ci Sénégal fu ma gën a neex ci Sénégal non man à part Kër Massar nii nag moom gisuma dëkk bu ma gënal quoi boo am ci Sénégal Kër Massar moo la ko dàqal mhm. hmm. soo doon tukki ban réew ngay dem ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi waaw man français laa yow man parisien laa waaw parisien germain ici c'est Paris parisien laa de e man bañ na ko ba kii match coupe du monde bi saa dama doon supporter France noonu la fa demee eh, man France yow ñoo bokk non man français laa yow France moo tukki nii nii nii France ngay dem laa France laay dem quoi dëgg fa yàlla ba tey ci question réponse ah instant bi nii may wax ak yow nga liggéey tekki daal ci alal ju bari lan nga ciy njëkk a def instant bii nii nga liggéey tekki am alal ju bari lan nga ci njëkk a def waaw man li may wax chaque jour rek dafa am ay jëmm yoo xamante ne xam nga dañoo def ci man ay ñaar dërëm ak dërëm quoi yee muy maam xam nga du ma lim turu quoi damay wax booy yëpp rek ndax booy maanaam ku nekk maa ngi lekk sa dërëm ak sa ñaar dërëm xabaan moom dama koy jël quoi xabaan mention spéciale laa koy wax ndax maam tey booy ay seen fukki dërëm ak seen ñaar dërëm booy damay ñëw gaale sax du ma am lu ma lekk xam nga booy ñëw ñëw yëkkati seen xaar def ko ci man mais kon man maam su fekk dimanche 100 francs 100 francs ah non non loolu bari na de bari na de booy def leen ko dimanche def leen ko dimanche juróom juróom ëpp ngeen 50 personnes chaque dimanche 100 francs 100 francs wàññi leen ko def leen ko chaque dimanche 25 francs 25 francs 100 francs daa bëri de. na man man gor laa quoi te maam gor tamit xam nga gor du fàtte démb quoi man góoma ay nit am xam nga di bàyyi ñu ngee nekkal. kon yow léegi boo tekki woon am loo ci njëkk de. maanaam lii man mu kaa ñaaga yaani dama koy ñaan yàlla chaque jour te lool laay continuer di ñaan yàlla muy su ma naree am benn benn mil bu dajaloo sama poos ma nar ko lekk bàyyi leen barki Serigne Touba yal na yàlla rey jour boobu maam damaa dund ak ñoom quoi booy nii. damaa dund ñoom loo xamante ni xam nga am na si ñoo xam ne sax ñooñu ma am ñoom ñoo foowandoo ñooñu moom dama leen dama leen jéggale sax dama leen jëlale tegee leen nee quoi ñaan am ci àdduna bokkoog ñu waaw ndax maam dañoo daj ci man ay coono yoo xamante ni barki Serigne Touba du ñu nelaw xam nga surtout am benn gaa dama koy jël quoi si ba ko muy pël muy amee pël bërëdë boobu muy bërëdë moom xam nga amee pël quoi amee pël maamam ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp mais maam li tax xam nga ma siré ko ci booyu quoi daa nekk ni koo xamante ni xam nga su ma ko ñàkkoon sama laay fu ko quoi sama làmb day day taxaw li tax muy taxaw maam nit quoi nit da ngay ànd ak ñoo xamante ni xam nga soo naree def lu yoon sax dañ lay woo ne la diw maam ma ko yow gaan li ngay def nii la ak lii ak lii xam nga nga mer après dem mais boo wéetee da nga xam ne carrément yow ma la suma kii lim la tegal ni dëgg la quoi nit maam làmb quoi mbër ñooñ ñoo koy yor mais mbër fekkee tànk yaa ngi ànd ak ñi nga xam ne dañ lay jay yow loo def rek ñu ne waaw non sa carrière làmb mën nga dem quoi mais doo sori instant bi ni may wax ak nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi lan nga fi jële benn baat boo ne lii jële leen ko fi ñu jële ko fi lan nga fi jële xeebaate bi ak néewante doole waaw luy loolu quoi néewal bëggoo nit kuy néewal nit doole waaw man man moom bëgguma loolu quoi bëgguma kuy néewal nit doole quoi loolu boo mënoon da nga koy jële ci Sénégal waaw man moom loolu moom surtout loolu ñu yemale ñëpp ñëpp benn lañ quoi yàlla moo bind wërsëg yi rek xam nga yàlla moom dafa bind ñii dañuy am ñii dañuy am tuuti ñii moom dinañ am lii ñii nag dañuy duñ am ba ba xëy dee quoi mais nañ yemale ñëpp rek waa te xam ne ñëpp waaw xam ne ñëpp ay nit lañ yee question suivante bi rakk ji bi nga juddoo ba tey ji may wax yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund jour boo xam ne da kontaan xool sedd ba nga yëg ko ban jour la jour bu ma mës a dund suma àdduna jour bu ma neex non dundaguma ko nag quoi boo ci dundee di nga am mbégte ak bànneex naqar ak tiis des fois mu taxaw mais mbégte ak bànneex day am xoolal ban jour nga kontaan ci àdduna boo xam ne pare nga pour séddoo ko ak ñi lay seetaan no bàgg sëñ Tuubaa dunaguma lu ma neex sama àdduna ndax xamal a moo tax dunaguma ne li ngay séntu li nga bëgg a def defagoo ko li nga bëgg a am amagoo ko mais jot nga dund lu neex ci àdduna non weesul maanaam xam nga yow di ànd ak say nit quoi yaa ngi comprendre yow maam ngeen dem ci affaire boo xam ne ay xëccoo ay xam nga ku mel ne làmb affaire yooyu nga ñëw indil leen ndam loolu rek mën na gars yi bëgg rek boo bëree daan boo gisee say soppe ñu kontaan di sibile da ngay kontaan eh, man loolu rek sëñ Fallou loolu moo lay bégal mhm. question suivante bi bi nga juddoo ba tey ji may yow ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund jour boo xam ne da am naqar ak tiis ba nga ne am nga lu la métti ban jour naa la man nee naa la ba mu juddoo ba léegi maa ngi doog am lu ma métti ci sama àdduna moo doomu jaam gën daanee sa defet sa diggante ak doomu jaam gën looloo li la gën a métti ci sa àdduna barke seen ndax lu tam mu métti ma man man ñaax naa sama waajur bu góor sax xam nga mais ba ma koy ñaax maa ngi nekk mbooc xàmmeewu ma lu bari quoi mais maire remplacé na lépp yaa ngi comprendre fépp fu ma waroon taxaw rek moom taxawu na moom foofu noonu ba métti bi ma waroon métti métti ma mais doomu jaam nga li tax mu métti ma man daf ma damaa échec échec boo xamante ni war moon échec nga damaa gis sama alal nii ma ñaaxu ko mais maanaam doomu jaam nga su ma ko daanoo sama làmb doy ubbeewu moo waral jour boobu moo la gën a sa àdduna loolu moo tax mu métti moo quoi ba nii daf maa métti ba tey ci kaw mbër yi tee làmb ji kan nga ci rêvé un jour arbitre sifflé génn sen digënté nga wara bëre bëreeg moom mbër yi nekk ci kaw kaw mbër yi nekk ci kaw kaw mbeur bo xamné bëre ak mom dalay neex waaw man mom sax jour rek man nee man bëre ak ay Ama balde affaire yoy daf may neex ñaari pël yi ci biir géew ñaari pël yu ñuul kuk ci biir géew arbitre sifflé génn sen digënté gaucher bama bama, ba ma reporter ni attention attention gaucher à gauche Ama balde à droite arbitre bi sifflé na génn sen digënté waaw loolu daf ñu neex. ngeen mbëkkante. waaw ndax ay xale lañ quoi ndax moom tamit xam nga jàmbaar la te dañ koy ñaana tamit xam nga blessure boobu na mu am mu wér ak jàmm quoi ba mu nekk waaw ba mu continuer ay activité am. noonu la fa demee. Balde na gauche ko ku. la ñuy ñaan yàlla quoi te am nañ gëm. Balde sëq na ci génn gauche. waaw ñu ne loolu la ñuy ñaan yàlla. mbaa du ko mboot mbaa du ko mboot ñu ngi koy waaj a mboot teel na ko ci ans bi. waaw noonu la demee nag xamuñu luy am. gauche deful dara gauche deful dara. non boobaa moom dinañ def moom. waaw lu mu def noonu ñëwal maa ngi maa ngi reporté combat bi Ama Baldé sëkk nañ ci bi Gaucher lu def. waaw Gaucher day bëre ba naaw lu leer la. Gaucher mi ngi bëre a mi Ama Baldé tànc na ko. waaw bëre de. dugal na ko ku Gaucher Ama Baldé dóor na Gaucher. yàlla xam na loolu dañuy bëre ba naaw maag Ama. Hmm. ndax moom jàmbaar la quoi. ku daan ku daan. ku daan yow xoolal ko war a daan rek. xaaral supporté nga ne allo allo Esat allo. Gaucher Ama Baldé kan moo daan. boo dañ moo daan. après mu jeex yàlla nañu yàlla may fekkeek tal yàlla nañu yàlla may fekkeek tal gis nga mbër bu ndaw boo gis mbër bu ndaw mooy màgg doon mbër bu mag tey fi toog tey naan damay rêve bëri Ama Baldé nga jël li publier ko am ku seetaan ne waaye booy bi booy bi daa naan damaa bëgg a bëri Ama Baldé fekk un an deux ans trois ans quatre ans ñu ne combat bi taxaw na xoolal ma war a génnewaat vidéo bi rek publier waat ko ne xoolal booy bi waxoon na ko mat na boobu léegi mat na quatre ans cinq ans mel ni booy ñaan ba muy dugg ci naan jox leen ma Balla Gaye Balla Gaye ba mu dugg ci lamb ji naan jox len ma Tyson comme non la rek mbeur mbeur bo gis mbeur bu ndaw bo gis moy mag ko doon mbër mag japp taw bay mais la la fa yobbu la la la yobbu ci mbeur yu magi la la wa mais moy gem gem rek yéem ak gem gem serie beug ko wa surtout lamb quoi lamb moom boo ko rek suñu borom dina ci dimbali quoi mais di jégalu tamit ci ben affaire bo xamanteni xam nga mom lañu waron jëkke muy suñu ben nit muy suñu xarit muy ko xam da doon sonu suñu muy sama saxo yee eh, suñu boroom dafa def mu wàññeeku fan yii ñu génn waaw suñu grand la woon suñu xarit la woon suñu koo xamante ne xam nga suñuy làmb quoi da ci doon sonn bu baax a baax yee eh, suñu borom def mu wàññeeku mais dañ koy ñaanal xam nga suuf bi mu suufu daaru salaam eh, yàlla suuf ci kawam quoi ñu koy ñaanal tamit xam nga yàlla xaare ko àjjana borom baax la woon nitu kese la woon nit la boo xam ne da doon sonn ci booyëb du ma wax man kese boo booy ni moo leen jàngal métier xam nga ñoom góor gi fay moom moo leen jàngal métier xam nga dañ koy ñaanal tamit xam nga na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare àjjana dernière question dernière question soo nekkul woon mbër lan ngay nekk soo nekkul woon mbër joueur football ngay nekk wala boxeur ngay nekk wala karatéka ngay nekk wala rappeur ngay nekk wala soo nekkul mbër lan ngay nekk non ma nekkul woon mbër joueur laa doon yow joueur football ngay nekk waaw man ban poste man ba léegi joueur laa sax ban poste ngay joué man may football 10 milieu terrain laay football milieu de terrain yaay séddale maay séddale de 10 bu mag bi man dimanche nii damay dem takk daal yi dem football de. ba léegi nii damaa bëgg football quoi. Mhm. kon daal euh, kër ma 100 pour cent kër ma saar bi bu ñu naree football gaucher mooy takk 10 taxaw ci milieu de terrain bi di jëlee ci défense bi di yóbbu ci attaque boobaa kay bu ñu jooy dara 10 bu mag baa ngi nii de. yaa wax lu leer laa la wax. am na de gars yi ñu ngi lay seetaan de. lan kan am fi match rek nga dugg ci terrain bi di wiiri wiiri rek mel ni pël bu euh, perte ay nagam noonu. kon kër ma saar gars yi xam nañ ma sax am na ñoo xam ne ni football lañ ma gën a xamee sax ak bëre yàlla xam na li ma lay wax ni boo yoo xamante ni maa li ma nekk mbër sa def leen metti quoi ndax dañ ne boobu carrière am football moo ci gënoon gaaw ak bëre. Mhm. maanaam yow yow da nga nit koo xam ne loo dugg boo ci nekkee à 100 pour cent da nga ciy xarañ. non man yàlla dafa def loolu même man sama mag boobu ma tuddee boobu Aliou Gossé moom ma bu duggoon teere di football sax da nga naan non kii xanaa du sa waay quoi. noonu la fa moo ñu may loolu. jàmm ci yow rakk ji c'est comme j'allais ci del dire série du yem ci benn épisode mais xam naa tamit du mujj tey. li ma indi woon ci question fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen lan ngay tàggatoo. santal ñëpp gërëm ñëpp woo ñëpp. waaw lu ñuy lu ñuy wax rek mooy xam nga. di ko bëggee di ko jégal bu baax a baax ndax guddina tamit xam nga mu nekk ak ñun fii nii xam nga dikki ngoon ba léegi amuñu fayam xam nga di ko bëggee daal di ko ñaanal tamit yàlla na ko yàlla suturaal yàlla defal ko xéwal yu saawaan baawaan di bëggee sama waa village surtout ñooñu sama waa village. waa dala maa ngi bëggee bu baax a baax di bëggee waa weltaare waa deef xam nga waa diisoo boo yi fa nekk yëpp yëpp maa leen di bëggee di bëggee képp koo xam ne daf ma fay jàppale ak bëggee sam fan club bi nekk foofu noonu di bëggee Demba sam président bi nekk foofu maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee eh, Tafa Tafa Tafa yéen maa ngi siyaar bu baax waa baax tamit nekk Touba day jàpp suñuy combat di bëggee booy booy aw ma seen fay xam ay si gaynde démbale xam nga ay muñang abdakara xam nga ay Ous ga xam nga ay Mbaye Diagne góor gi baa Amba xam nga ak Fouo surtout xaañ xabaan boroom cek-cek bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax ndax moom maam xam nga lu tax ma koy bëggee maam xool dafa rafet quoi moom champion la gis nga bi ñu doon defee moom moo ci xar tànk tuwéyam sonn ci ba affaire yi am di bëggee ku ci mel ni xam nga Fatou Kiné Fatou Kiné sama jigéen la aw ma fayam li ma lay wax ni dama bëgg maam nga génneel ma ko quoi ndax ñooñu noonu li tax maanaam ma leen di sant quoi du làmb su ma amul làmb soxla bu ma am dama leen di woo téléphone ne leen lii laa bëgg te dañ ma ciy sonn ku ci mel ni ki ne aw ma fayam maa ngi lay ñaana xam nga yàlla na la yàlla defal xéewal bu bëree bëri di ko nuyu mook ay doom ay ñoom Thierno xam nga ay ñoom Ahmed maa leen siyaar bu baax a baax di nuyu Séli Séli maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu tamit xam nga ku ci mel ni Laay saw Laay Sow te mu nekk Daaru Musel fii nii maa ngi koy béggee bu baax a baax day jàpp suñuy combat ak lu dul suñuy combat xam nga ku ci mel ni Ibou Ndaw tamit Ibou Ndaw Ibou Ndaw maa lay bu baax a baax Baye Fall bi borom Paris maa ngi koy bëggee bu baax a baax ku ci mel ni Ibou kamara tamit day sonn si ñun xam nga di daj ci ñun coono yu baree baree bare damay am problème entraînement saal sax ñoom ñoo yëkkati seen xaas na ma am damal abone kon ñooñ ne oma seen fay quoi xam nga ku ci mel ni xalifa Mergan xam nga dañ koy woo quoi dañ koy woo mu ñëw di jàpp suñuy combat ñun ay xaritam ay rakam ñun ak ñoom ñooy ànd kon suñu amee combat dafa war ñëw jàpp ci suñu combat Mergan ñu ngi ko ciy woo bu baax a baax ku ci mel ni xam nga màgget suñu jigéen ko amuñu fayam kooku maam xam nga tamit suñu amoon ñaari mel noonu koñ ba rek xam nga yee affaire day gën a xéewale ndax moom borom baax la day sonn ci suñuy bis quoi maa bëggee tamit mafia si ci mbii bu ndaw bi waaw maa leen di bëggee bu baax a baax di bëggee Kéba Kéba nga xam ne moom mooy président bi mafia si ci bi di bëggee ñoom papa naana mooy mafia bu ndaw bi e njey yu ndaw a ndaw yi waaw maa leen di bëggee bu baax a baax maa ngi bëggee ñëpp di bëggee suma waa dëkk tamit aw ma seen fay waa dala maa leen di béggee bu baax a baax a baax di commencé dala ngaabu diigaan wuro kutub xam nga daaru xafoor daaru nayim xam nga wuro geloore fépp fépp foo xam ne bawol bawol mu ngi fa nekk rek maa ngi lay bëggee bu baax baax di la wax ni xam nga ñun seen doom lañ waaw ñu leen wax ñu ñaanal ñu bu baax a baax incha allah maa ngi lay bëggee tamit di la wax ni xam nga sonal naa la mais yow sama nit nga suma mag nga maa lay ñaanal xéwal bu baax a baax ok. jàmm ci yow sama gars yi l' émission tire à sa fin tey ñoo ngi woon fii ci Kër ma Massar ñu woon seet si l' espoir de l'écurie Diop Sogo nekk en l'occurrence mi ngi nii mbër maa ngi sama gars kii mooy gaucher le gaucher magique. de Darumise le Gorée Magique de Dibiteri le Gorée Magique de l'arène mi ngi nii sama gaay xamé xàmmee ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax def na fi ah, def na fi lu ne wengi kii moy indien bi adversaire yi yàlla waxal nee mi ngi ñëw daal kaw waajal len bu baax promoteur yi dama di lancer appel ah da ñew diko di ko seet si jox ay combat muy dugg ci lamb ji di bëree di wane boppam sama gaay li la won fi la won ci cœur Massar sen émission lamb rek ci avec euh, Gaucher ma leen di joxaat dig daje ba benen yoon ziar ziarat jaa de sama gaay